néew di doole yi ak ñi nga xam ne danoo ànd ak ñoom ci wàllu politique ak it ñi nga xam ne ay daara alxuraan la ak ñi nga xam ne ay dëkkandoo lan ak ñi nga xam ne ay ndaw lan yu ne ci terrain politique bi kon loolu moo doon ndimbal yi nga xam ne moom laa woote woon pour dajale nit ñi pour dimbale leen ko ci korite gi kon loolu moo doon solos ndaje bi ma ànd koo convergence taxaw noonu mag ñi ak responsable politique yi nga xam ne lenn ci responsable politique yi ne ci dëkk bi ma ànd ak ñoom ci liggéey boobu. ñun ñëpp ay donga daara lan ñun sëriñ si ay donga lan kon jàpp na ne suñu liggéey bu bari ci foofu lañ jëm parce que bëgg nan ñàngale bi mag ñi dem ci daara yi. ci école yi ak yu noonu kon côté boobu ñi ci liggéey bu baax a baax. ci jotaay bi da nga fi fekk askan wi parce que man bu ñëwee damay naan ñi may toog ne kon askan wi it ñi ngi ci biir waaye ñooñu di ñu jàppale ci politique ci askan wi lan bokk waaye tous les façons li ñu ci am solo rek mooy ñi soxla dimbal ñu dimbale leen kon loolu mooy li ci jiitu kon fànn googu moom ñu ngi koy def ni ñu koy defee ñu ci sant yàlla kon côté boobu it ñu ngi ci continuer di liggéey emploi bi ñu ngi ci nekk di liggéey pour ndaw ñi parce que fii may waxe ak yow euh, colloque boobu ñu war a def euh, dem na ci ba nga xam ne ñi ngi ci war a liggéey diggante ndaw ñi ak réewam nan ndaw ñi nan lan mën a defee ñoo xam ne gouvernement bi dana leen encadrer ci wàllu mbay ba nga xam ne tey jii ci tey àll bi ñu yàlla jox ak jant bi ñu yàlla jox tey ñu encadré ndaw ñi pour ñu bay parce que réew yu bari bu ñu développé mi nga aji ci mbay kon ñun euh, convergence bi doon ay donga daara xam lan mooy bay loolu it ngi ci am ay xalaat yoo xam ne incha allahu rabbi buñ ci paree danañ ko jébali ki nga xam ne mooy njiitum réew mi engagement personnel bi mooy ñi ngi engagé bu fee bu li nga xam ne mooy diine ji côté politique bi ñu ngi engagé di jàppale président Macky Sall ci côté am li feeg mi ngi soxla ñi nga ànd ak moom ko jàppale wàll gu mel noonu engagement politique yi dëkk bi di Touba ñu fa yéene koo ànd ak moom di ko ci liggéey di ko ci jàppale liñ ci teg daal pour leeral ne dëkk bi moom ay sëriñ lan ñi ngi koy jàppale ay yeneen a ngi fi ñeneen a ngi fi nangoon nan ëllëg démb ab sëriñ ñëw euh, euh, ñu jiital ko ñu ànd moom ay fii ñu toll it danoo egg foo xam ne ci dëgg dëgg dëgg jàpp nañ ne dëkk bi di Touba euh, ci wàllu politique moom duutu ñu nangu ñu beneen sëriñ boo xam ne xamul politique di ko teg suñu kanam man ma koy ma koy nangu mu doon wàllu sëriñ rek loolu moom sama engagement politique la loolu nag dama koy wax ba ñëpp di ma ne parce que man lu ma nekk nekk naa ci lu ma engagé engagé naa ci dëkk bii nag li fi nekk mooy faaw ñun ci suñu jëm kenn ku ne lam yàlloo ñu jox ko ko bu dee ab sëriñ la buy def politique dugg ci reenu politique bi am ci expérience kooku dañ ko war a jox lam yàlloo bu fekkee ne wër wàllug sëriñ la nag goo xam ne da ngay toog doxal sa wàllug sëriñ kooku beneen affaire la waaye nag ñun suñ gëm-gëm ci pas-pas jàpp na président Macky Sall la waaye nag ci ay principe la lañ ko teg beneen bi ci des ci dëgg lañ ko teg loolu mooy suñ gëm-gëm engagement euh, bin am ci jigéen ñi tàmbale nañ ko nii parce que lu ci bari ci ndimbal yi ci jigéen ñi li jëm ak ndaw ñi kon jàpp na ne tey li ma fi dajale lépp ci ndaw ñi li jëm ak jigéen ñi ca engagé nañ ci ca loolu it bëgg nañ dem ci ñoom ci ay formation ak ci yenn mbir yoo xam ne danañ leen ko jàppale maa ngi nii pour ëbb ab sees sees boo xam ne nii tamati lu ci jëm ci ñi nga xam ne ñoo ak man doole Modou ak soppi ak responsable politique yi ak man ci